ñoom ñépp sol lu weex di déglu sëtu Seydina Limaamu Laay ñu dajaloo ca xunt bi nekk foofee ca ngoox mu nekk ab bërëb bi nga xamante ne yéeme na lool bokk ci ay bërëb yi nga xamante ne ñi di laay ñi dañ koy ziyaare saa su appel ba jotee ngir ak fàttaliku Seydina Limaamu Laay libaase laay rusulu laay looloo tax ñu daje fii yoneen ngaa yoneen nga moo ñu fi dajale bi iznillahi jalla wa ci digalal sunu boroom ndax ñépp xam ne seydina limaam alayhi salaatu ak yonenta la woote kuy sos ak yonenta ginnaaw yont yàlla Muhammadu moo fi amul waaye yont yàlla Muhammadu ci boppam moo ñëwaat fii ci nun moo oote ci penku weex tàll dim naar tudde muhammadu rasulullahi sallallahu mu soob sama boroom mu pare foofu mu jële ko fa feeñaat fii ci nun ñii nit ñu ñuul ñi tudde imaamul mahdil muntazar alayhi salaatu wasalaam di seydina limaamulaay alayhi salaatu wasalaam kon nag lii mooy kaddu gi lu ñuy nëbb amu ci fii la ko yàlla laxoon lu ëpp junni at guddi gu jot mu génn wër àddina ñëwaat moo ko wax ci làmmiñu boppam. ca taarix bi nga xamante ne ñu bokkaloon jamono nettali nañ ko Seydina Limaamu lay nekkoon na ko yéeme ñu jàppee ko saa yoon ci yàlla Muhammad bokk na si lu koy mandaxgal jaax-jaaxam foofee ca île de fi nga xamante ne tubaab yi tegoon nañ ko fa loxo. Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñëw na fii toog tubaab yi dañu ñëw ubbi fekkuñu ko fa wala kéemaan googu. dañ ko daan ubbi kon daam nekk ci ginnaaw duñ ko bu ñu ñëwee ubbi fekkuñ ko duñ ko fa fekk dinaa ñëw ci beneen xisa boo xam ne gore mu ne dañu ñëw ubbi bés fekkuñ ko fa te pourtant mu ngi continuer di tëju la Nabahaani wax rek lam tax taxsurhu min rawdi qabrihi arjaaw tëj gu ñu tëj ak miire gañ koy miire clôture ka terew kaa génn dem mu ne ñu ne uwe limaamu bi ma yuuxu bi ñu yuuxu naa ma ooy limaamu ma xool gis yet bant bu wéeru fi mu toog mu soppaku doon bant téeméer ak ñeenti fukkeet ak ñett ginnaaw wooteeb Seydina Limaamu Laay ba léegi nag ay jëfam daal dinañ des foofee ca Cambérène Ngor ba ci yoof at bu nekk ñu fay màggal boobule appel mu nekk fi ñuy waxtaane lu bari jëmle ko ci nit ñi ak jinne yi